Mais je pense que je devais le faire. Je devais le faire pour les sois Je devais le faire pour ceux-là avec qui j'ai cheminé jusque-là. Honnêtement, je ne pense même pas avoir fait tout ce que j'aurais dû faire. Vraiment, merci. Et encore une fois, mention spéciale au personnel de la préfecture. DAC ah eh, le préfet Moussa Diagne eh, eh, toujours ma wax ko xam nga buñ ne affecté nañ la rek dañ lay ñëw di wax ah kii ñëw kii ñëw man leen man day leer na ma ni kii ñëw lépp lu ma fi mun mun na fukkam yàllaa ma tax dama ko xam ndax dëgg la fekkuñ lu bëri dajewuñ fu bëri it waaye dañuy di daje ci ay réunion di daje ci ay programme ñuy ñuy dégluwante eh, ñu gis farloom compétence am ak xereñam te loolu moom la ko ay kilifaam seedeel eh, Euh, biñ ma jokkoog ci kenn mi ci ñoom mu may wax ne diw day lañ bugg moom lay remplacer lam ca teg rek sedd na xol donc euh, mom, mu ne il sait que c'est quelqu'un qui sera à la hauteur c'est quelqu'un qui est d'une compétence inégalable et donc liñ koy ñaanal rek moy yalla dimbali ko yàlla taxawu ko fii ci biiri mbokkam monsieur le président de la république moom mi ma wóolu yeesalaat kóolu def ko ci man monsieur le président de la république maa ngi koy gërëm di ko sant ginnaaw ba mu yeesalee kóolute gi ba pare nag yónni ma foo xam ne nii dama faa sawar sama xel dina dal parce que xamna wa waa bu c'est des femmes et des hommes de valeur prêts à se tuer à la tâche motax ma japp ni li nga xamni ni lañ ma dénk ma war ko doxal japp na ni ko Fodé Fall waxé légui suma ma sama kanam dina len gis suma ma sama chamoñ wala sama ndeyjoor na len gis suma ma sama ginnaaw na len gis Nga kham ni mwem la isen touti Kounek ti yen Mwou gour Mwou jigen Mwou mak Mwou ndaw Mwou e koufi dek Chosa anonfi Wala koufi ganesi Ken nou kounek ti yen Limayi lak mwou e bisbounen Ken nou kounen Genne ti se tan Genne ti se djot se jenerosite Nyo ton tinel ko koo xam ne nii moo ñu sut ñun ñëpp ëpp ñu ñun ñëpp te ñun ñëpp ñu war koo liggéeyal muy le département de Thiès tontine boobu ma leen di woo duñ ko sottil kenn ku dul département de Thiès